li ñu taxoon ñëw fii tey mooy ñu daje ak ambassadeur bu Grande-Bretagne bi xam ne moom mooy réew bi jiite tey euh, kuréel bi ñuy wax jé 7 moy réew yi xamné ne ñi ëpp doole ci aduna bi ñom ñoko ko té États-Unis bokku ci ñom ginnaaw dañuy dajé fexi fan ñun dañu nasoon pour an ñëw jébbal leen suñu appel jaaré ko ci ambassadeur bi xamné mo fi né togal fi Grande-Bretagne pour mu jébbal ko gouvernement euh, bi xamné ne Tony Blair mo koy jité pour que G7 buy dajee groupe boobu bu ñuy dajee ñu mën a wax li xam ne moo àddu ci Afrique te jóge ci ñun muy euh, li ñuy ñaan réew yooyu xam ne ñoo bokk ci àdduna bi euh, ñu far bor yi xam ne moom la ñu gàlle ci ndoddu Afrique ngir ñu mën a xeexi xeexi ndax boobu ba léegi xam nañ ko ata ngi nii euh, Afrique ak réew àdduna bi yëpp ñu ngi nërmeelu ci li xam ne moom moo leen tënk mooy feebar bi xam ne mbas mi xam ne mooy dal seen kaw te ñëpp yëg ko muy réew yi am doole ak ñu ñàkk doole rawatina réewu Afrique et ci loon nag bi ñu waxtaanee xamal nañu ne euh, seeni réew dinañ daje am nañu nisër ngir loolu ñu mën ko waxtaanee euh, wax nañ tamit ne loolu mu ngi tënku ci ISRI euh, kuréel bi gën a yaatu te ñaar fukki réew seexu ko ci àdduna bi te mbir moom aussi mbir la bu ñuy waxtaanee wax na tamit ne ñoom. Euh, xam nañ bu baax li réewu Afrique yi du dund xam nañ ne gàllankoor bi tegu seen kaw diis na te loolu donc na bokk ci li xam ne moom mooy seen xalaat pour que mbir yi ñu mën ko waxtaanee loolu daal lañ fi jëlee ñu yaakaar ne lu am solo la ngir ñu mën a sunu baat bi ñu yëkkati fii ci senegal di addu ci Afrique di addu ci àdduna bi yëpp mu mën a nekk baat boo xam ne fépp ci àdduna nañ ko dégg ngir ñi xam ne ñoo ëpp dellu ci àdduna bi te ŋànk koom-koomu àdduna bi mën a xam ne réewu Afrique am na lu ñu soxla ci solidarité bu ñu bokk mooy bor yooyu ñu far ko